What was this for? Laurent Ndiaga ak ak Alliance Baldé ñooy bëri nii. ayca jibi mi ngi noonu. troisième combat de la soirée mbokk yi mbokk yi la borom Sandaga. arbitre sifflé na Laurent Ndiago Alliance Baldé Ndeye Mbacke kan ñu xeex. xeex ba. xeex ñoom ñaar. kii xalaatuñu ñoom ñaar. Eh, jël na ko songoo nañu xeex combat Ndeye Mbacké xale yi meroon nañu way combat waa ngi nii xale yi meroon nañu way jibi ñaari xale yi ñamante nañu ñamante nañu drapeau jëli fajal la mënul yomb mënul yomb drapeau jëli fajal la alliance Baldé dem na ardo la ilaha illallah ngay dem ardo ardo am na fi yoon drapeau jëli fajal la ma ngay wax ak moom mënul yomb way combat waa ngi loora jàpp sax la eh ana lamb la foofu fay jee Baldé dem na ardo ñëwaat avertissement Laurent Ndiago waaw waaw tardé nga lu rëy eh jël naa ko arbitre suuf la waat na arbitre suuf la waat na i mbàkke mais sa waay ni muy doxee si kaw Laurent Ndiago booxul wóorul dox baa ngi a baax bu ko Laurent a moom problème mais ñu ñamante yar na ko day mbàkke ñaari xale yi xeex nañu léegi loolu mooy yoon lamb ku nekk tant que xeex ñu buntu du am foog ñu xeex buntu am loolu boo jëlee façon la xeex Laurent kawo jàpp na ko daan na ko waaw waaw di totalement booy bi c'est ça il est très dangereux baaxul si moom attention à Laurent Ndiago nee naa la li muy doxee si moom baaxul attention le jeune frère de Liss Ndiago le jeune frère de Liss Ndiago bi si teg loxo mu teg il a fait comme jee lañ ko jàpp il a fait encore il a montré son talent nee naa leen moytul ma booy bi il a montré sa force booy bi day dem devant soxor jël la na dafa ñimee xeex na ak moom dafa ñimee dan cas Baabal amul ni muy waxee ni lay bëree. xoolal ma kaw ci jibi. tey jël nañ ko. xoolal ma xale ba. mais wane na jom. lamba feeñaat na wane ngor. lamba feeñaat na wane fulla. neewoon naa la wane fayda. si bëre lay jeexee. lii mooy bëree. xeex na ko. boo yaa ngi doorante. waxoon nga ko. bëre bi di am. waaw eh, Laurent Ndiago. si kanam ay dàq. si kanam. wóop wóop wóop jibi ñu dem ñëwaat. bi. waaw instant bi waaw. nee nag ma. seet si làmb la. barki allah ji fàllu du mag jël naa ku jël na ku. mais si doo jeexee. lii mooy lan. tetes metes. tetes metes. patari ba yokk ko. si aliyaay. non jox ma sama jàllaabe. sëñ Fallou. guddil na ma bëccëgal ma gis ngeen. man maa sant sëñ Fallou rek. barki Alaaji Fall jàppoon ne moo la mën bi ko sant sëñ Fallou rek. waaye sëñ Fallou kenn ko duma. mais tamit di bëggee sama mafia. jàmbaar rek ñu sonn. Mawla Ndiago. seen premier jàppante sama gaale ñu waxtaanee ko ba fajar te da maanaam. bi nga njëkkee daa dañoo dóorante ba ci ñu faju ji dañoo dóoroon ba arbitre àtte gi te suñu arbitre bàyyoon foofu dañuy reyante maa ngi sant yàlla bu wér yàllaa may munu ma ko nag waaw. maa ngi sant bu baax. sa combat waxoon naa la keroog bu mu la jël see ne woon du yomb. combat bi mënul yomb ndax gars yi si ñaari porte yëpp. dama ni waaw dañ ñoo bloqué. parce que parce que man du ma nit ku ndaw man su ma jugee jàmm gën ñëppay jóg. Sénégal Ndiaye ñëppay jóg. mais yaakaar naa yëg nga victoire bi. waaw waaw ñun loolu ñun ñoo ko moomoon loolu ñun. xam nga ne jàmm gën moo koy jël. non jàmm gën moo koy jël te jàmm gën tey day wàcc. ba zéro. day wàcc ba zéro. la. waaw ñun deretu jàmm gën lañ. dërëm bi génnul gaal gi la. borom toujours baax. dërëm bi génnul gaal gi ñun deretu jàmm gën ñu ñëw ñu waxtaan. waaw amul problème wax dara yow. Eh, quatrième combat de la soirée mbokk yi journée Baba ñu koy wax Thiam production diggante Kaw Cissé numéro 2 ak Fadam Junior at ba wax na ak ñaari xale ya Fadam Junior mu ni waaw Kaw pare mu ni waaw ba sifle na jël seen diggante Kaw Cissé Junior jiital pied gauche Fadam Junior jiital pied droite jàppante sa ñaari xale yi dal nañ sol Fadam jàpp na ko Kaaw bal ko da koy tegal 16 luy xew Kaaw jàpp na Fadam a ngi dóor Fadam a ngi dóor Kaaw téye sa ngemb la eh, ñaari xale ya ñaari xale ya jibi attention Fadam attention Kaaw yee ñaari xale yi tal nañ jàppante ay eh, waaye journée Baba Diaw production mbokk yi tey lamb yëppay gaaw jàppante nañu Kaaw sol na ko Kaaw sol na ko Fadam fi ñu na Fadam Junior fi ñu lay egg na da lay tegal sees kal kal na la kal na eh, bañ na ko waaw ba léegi takk na ko Kaaw takk na ko Kaaw takk lay la la waaw waaw Fadam Junior daan na Kaaw Cissé waaye Fadam Junior daan na kaw Cissé waaye waaye doomu Guédiawaye ba daan na gis naa Lirou Diane a ngi sibile doomu ba daan na gis naa Lirou sibile na doomu Guédiawaye ba daan na. Lirou Benga. tubaarkalla macha allah. des na des na bi nga tijjee neex na waaw des na tubaarikàlla macha allah bana ndaanaan la fanam gërëyee la ndaanaan la. mais noo waajalee Jackson. waaw euh, tey tey la war a wane boppam. tey la war a wane boppam tey la Jackson war a war a xam kuy Jackson. lan a wane dafa am bis bis bi. képp ku ne ku ne ñëpp koo wax rek mën a ñàkk ñàkk ñàkk xamuñu Jackson ñi xam Jackson xam nañ Jackson ñi xamul Jackson nag xamuñu nga sa waay est nga ñàkk. xoolu ma ko sax lijjanti wu ko Jackson laa xool. nga ne. ma mooy loolu moom mu def du Caaroy. Jackson moo jógee Caaroy waaw non non da nga naan dafa na. non Jackson moo duggoon Caaroy. ñu jëlee incha allah rabi mais mais recours amu ko woon. Ah. sa diggante ak Jackson sa diggante ak Jackson. saa yoo aayee nga jëw sama doom la ba pare jox ma sama cër jox ma li ma yellool sama doom la sama doom la. waaw sama doom ci kanam. waaw ci kanam waaye daal ñoo ngi félicité Fadam di encouragé euh, Bou Siteu Bou Siteu vraiment jàmbaar la ndaanaan la wane na jom lii la yàlla dogal vraiment ñoo ñaan yàlla na yàlla defal jàmm Jackson mooy yàlla may ko ndam sedd guy ba dimanche ak jàmm.